delo ci arbeur wér ba jam jam ju bëri alhamdullilah ha ñu ñak bal nañ la bal ñu yalla bo boole jégal amin amin amin Mbaye Diop lan moo fi xew tey waaw fii champion d'Afrique rek ya am gëna a xam aha léegi nu ngeen gisé tournoi bi wa tournoi bi comme lamb yi ñu bëri rek ñu ngi ci xaw compliqué touti mais 11h daal légui sen adversaire yi est-ce que am ngeen ci yoo yeen nga a koy xalaat ne ki buñu ñu tasee ñoom mën nañ leen dal non ñun buñu diggé ci lamb di xaar adversaire ko ñu tekki ngemb ya am gëna gën a xam aha tàmm nañ ko dal waaw léegi particularité bi euh, Mbaye Diop bëri sans mu takk ngemb loolu du mu lay def. loolu du problème xanaa a daanoo chef de l'état chef de l'état dama bëri lii ngemb takk naa ngemb mais amul jàpp ngemb dañuy contact takk ngemb. waaw yaa ngi xam miin nañ ko daal. bagage nag saak bi anam. non saak bi saak bi mu ngi fële saak bi motali rek mais mënut a mbër yaa ma gën a xam. léegi tournoi bi noo ko gisee. waaw tournoi bi ah neexagum na de ñuy ñaan yàlla may ñu ndam mënuñu fi yàlla may ñu ndam yàlla may may Uh-huh. léegi est-ce que tournoi bu mel nii war nañ ko tëgg Dakar ak doy waayo bi yëpp nu mu toll bi yaraaxe ne est c'est normal non loolu moom wax dëgg yow mi yow mii lii sax xam nga ne loolu c'est pas normal parce que gars yi waroon nañu wàcc si dooleel ñu tuuti mais sant yàlla sant yàlla bu wér loolu du problème uh-huh. aja Mbaye lu nga wax yi ñu lay béggee loolu leen di wax fan si yi ak supporters waaw fan si yi ñi fa ñiy supporter Mbaye ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp bàyyiwuma kenn géréw palmarin ba John Waar ñoom jiblaata aw ma seen fay daal di ñaanal sama sama booy bi ordi dafa am combat yàlla na yàlla mbay doon ndamul seddu guy aha aca nam saison ne nama demoon côté of affaire la ndax nam fo drapeau pene jogoona mais sant yaa roog a paax sant yaa roog a paax a paax aha e jusque j'espère que neuf final daal joom na o drapeau leke inchallah njangan o kilo leng soom taw bo ah, ma felo ten Aliou no haga na mi billahi wallahi talai aha karna garana gar no gare gare o hay palmare me hay xoto mi daaro nga lokkan no den inshallah inshallah le amale premier médailles kanune reve senegal euh africo kana ali kou jagul aha musa pat tourna nan non non wala lutte afrique non non mais so participant de la première nek aha a kon djegal ok xarole ka amata ko supporter waaw dégg nga am na amu jëm bëggee rek yaa ma gën a xam. jaajëf jaajëfate merci.